wax dëgg yàlla nekkoon mbërum làmbu yàlla def ñu euh, tuumalaan ko ci ay mbir ba taxoon ñu tëj ko ci ba fi mu ne yaakaar naa ne génn na su ma juumul euh, mai mois de mai la woon euh, ñu tëjoon ko ci ba foofu la tabaski sax su ma loolu nag tey moo waral tey ñu ñëw fii ci géejawaay set si un champion tey ñuy nar a waxtaan ak moom ci yu mel noonu waxtaan ak moom tamit ci génn gi ak lan la koy wax moom la dëggee numéro 2 mooy 5 tonnes gannaaw boobu dañ koy nuyu rek. bàyyi ko ko mbokki internet di koy suivre. waaw ñu ngi lay fay di wax ginnaaw bi sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di wax 5 tonnes benn ndaw la bu judd 1997 sixième mois troisième jour hôpital Ndamatou 23 30 si si verte présenté wul bëggee dof yëpp bëggee àdduna bëggee géejawaay di bëggee képp kuy bëggee 5 tonnes xama di jox ñëpp seen wàcc waaye xama di sant sama sëriñ sama xarit xama waaw Cheikh Moussa Alaaji Baar maa ngi ko siyaar bu baax a baax di ko sant bu baax baax di sant Cheikh Adam Sène jàmbaar Cheikh di sant tamit xam nga sama góor gi ci rox bi vraiment xam nga góor goo xam ne daf ma bëgg nekk jàmbaar xam nga te mosuma wax luy dañ xam nga jàppale ma mu métti woon torop xam mu jàppale ma te saa yi ma nekk nit ku yàlla may nekk nitu baatin nekk borom xam-xam nekk borom diine nekk borom lislaam quoi. mooy góor gi xew ci réew mi léegi. waaw mooy góor gi si waaw mooy góor gi xew si réew mi. waaw vraiment koo xamante ni tamit vraiment rek soo sax xew mhm. la. boo xamee xam nga xëy na sax man ba ci fi ma bokk sax mooy Serigne Saliou bi muy xëccoo toolu xel ko mi ci ay jamono. Mhm. bokk na si ñu ko fa moo ko dugaloon xalwa foofa kon nga xam ne kooku du ko ndaw quoi. ok am na yu bari yoo xam ne ñu mu jëflante loolu maa si gën a ndaw xëy na man dama ñëw rek mu sëtoo ma teg ma loxo jàppale mu baax a baax. Mhm. xam nga vraiment tànqamlu ma sama soxla benn yoon te ba may ñëw si moom météo na trop trop trop trop trop xam di ko ñaanal jàmm bu baax a xam nga di sant képp kuy bëggee 5 tonnes di sant waa extérieur surtout di sant waa diaspora bi xam nga di sant képp kuy bëggee 5 tonnes sama mhm. moom waaw bëri naay fans moom vraiment xam nga ñi may woo si TikTok bi di ma laaj sama numéro pour bañ ma sonal numéro 5 mooy numéro 5 tonnes ok loolu am na solo yaakaar naa ne moom temps moom fans yi bëri xaalis bi bëri Euh, succès bi daal moom fi mu ne yéeg na daal mën naa ne. waaw sant yàlla rek di julli ci yonent bi xam nga di wax wala yàlla taf min kuma ahama seenu làmmiñ waaw di wax loolu wala tal taf bi kalimaatillahi taamati min kulli sheytaani wa haamatin wa min kulli aynin laamatin ko da wax ne suñu maam Ismaïla su xëy da daa limu di di muslu ci làmmiñ ak cat ak ndog ndog kon maa ngi koy muslu ci yéen bu baax a baax waaw ci ñun ci yéen journaliste yi waxkat rek képp ku ma ku ma yéene lu rek waaw man dama yéene lu sama xarit sama xarit sama sama mon ami sama gaan waaw di sant tamit sama benn xarit ku ci mel ni Elmo Actubuzz Actubuzz ndeysaan vraiment nekk na waaw ni dañoo seq lu raw journaliste moom dañuy partage lu bari Elmo maa ngi koy mhm. ñaanal jàmm Binta Gueye borom GPB ah waaw Binta Gueye borom Business waaw suba dañoo war a tëji place incha allahu rabbi sita Aline Sow mooy deuxième place mhm. jigéen gu nekk jàmbaar jigéen gu nekk gu mën góor quoi jigéen ko xam ne day liggéey te boolewul dara ki wax vraiment man dama ko jàpp te yàlla tax ndax man dama bëgg jàmbaar quoi tey it xam may génn si yu bari di waxtaan man moom Binta xam nga nekk jàmbaar maa ngi ko ñaanal jàmm kon mhm. bi loolu am na solo ñu ngi koy bëggee bu baax a baax mënu see ñàkk ñu indi ñëw ci waaye itam euh, yaakaar naa ne information bi jot nga ci muy digg muy la de Guiers numéro 2. Hmm. Euh, nekkoon ci prison bi yàlla def fi mu ne génn na lu ñu doon ñaan moo am ndax da mbër moo xam ni mosuñu koo dégg ci ay caaxaan. Hmm. muy mbër moo xam ni itam mosuñu ko dégg ci lenn loo xam ni problème la. Hmm. muy ci wàllu euh, ci li mu ne. doon dëgg tey bu ci ñëwee rek. ndog-ndog la boo xam ni dafa taxaw. moom la daggee numéro di papis lan nga koy wax nga jàngate ak génnam. waaw Lac de Guiers 2 vraiment man avant muy dugg kaso sax xëy na am na fu jaaroon comprendre daaw mos tudd sax turam xam nga vraiment moom it booba saytaane xam nga dem fa xam nga naa ko cinq tonnes nii cinq tonnes naa te man dama nekk genre boo xamante ni man li ma war a wax rek dama koy wax xëy na soo ko gisee bu négatif man du ma wax luy gaañ nit ci xol quoi mm. mais soo ko gisee côté boo xam day nekk négatif ci yore daf lay sonal te àdduna man li ma gëm mooy nit ku ne ki lay fréquenté sax su ñëwee di la wax ci nit dara sax war nga tiit quoi man ameen moo tax man awma xarit man hmm. li gën a tax awma xarit loolu ndax man damay bëgg ku ma jàpp ko ne dama lay jàpp te yàlla tax ñu doxal ci fulla ak fayda mais du ma nangu am xarit pour ngay taxaw ma wax may nga ñëw si man di wax si kenn quoi daa dëgër de tamit nit ku baax la ah yendu naa këram xama donc dama ko doon kii naan mooy loolu xama mais jour boobu bu dul dara waxtaan ba moo mag lu ne te nekk na ko xam waxtu yàlla du ko raw xama papaam nekk ku baax si famille mu am famille bu baax vraiment mu nekk ku jullite nekk koo xam ne ngor la quoi borom xam nga waaw jàmbaar la daal. Mhm. waaw man man man man ah, aw ma ci benn problème ah. ñu tegaat ko fi ñu ko tegoon ko neexee ñu teg ko fi ñu ko bi beneen bi ba ba yoma moom laa expliqué non laa expliqué comme xam nga sénégalais laay leeral ne man mhm. nit boo xamee ci moom lu baax war nga ko mën a wax comprendre mais man jour boobu yenn nañ mais gis naa ne waxtu jul du ko raw xama nekk na koo xam ne tooy ndaw dalay dolli mais xam nga waxul dëgg mais yàq na xol quoi mais wax ci 5 tonnes loo xamante ni mhm. Lac a dem 5 tonnes ci mhm. léegi dañoo toll réew moo xam ne kenn ko ne bàyyi woo sa bopp ndax ku ku bëriwul ñu bëri daanu sa kaw mhm. comprendre waaw Lac de Guiers nag duñ koy masaw di ko ñaanal jàmm xam nga di ko sant di ko gërëma ah, vraiment di ko di ko wax ne lii du dara ah, àdduna gis nga mag ñi sax bu njëkk bu ñu daa toog ba amuñ natt sax dañuy tàmbali dugg xalwa di ñaan yàlla pour mu teg leen nattu ndax dañ jàpp ne yàlla daf leen a fàtte mm-hmm. comprendre mm-hmm. yàlla xarit bi rek lay teg ay nattu ah Amet gis nga ma wax la ko tey su ma ñëwoon sa kër danga may ganalee di ma terale ngir 5 tonnes moo seet si tey maa ngi sant waa LG Mbaaw LG Mbaaw dañ ma invité woon seen camp bi tey mais vraiment bi ma demee non ndekete gendarmerie non mention spéciale. ay champion la ñu ah. barke alxuraan. surtout mu si chef ndaw. non chef ndaw tey dañ ma invité mu yóbbu ma si si si kii bi dafa woon physique comprendre na ne ma hmm. dinaa la may xaj ak mais non tey dama kontaan ba nga xam ne amet wallahi bu ma doon def benn dama damay gën a yokk affaire yi. Hmm. mais gendarmerie tey dañ ma dañ ma dañ ma dañ ma motivé indiwaat ma te xam nga tax ñu invité ma foofu noonu. xam nga tax ñu invité foofu nag war ma seen garaat démb nee na ma 5 tonnes boo gis ñu invité mooy ñu dañ yàgg a topp te amu sa numéro ma yoo xam ne nekk amee gendarme yi nekk na ñëpp a jàng alxuraan ñëpp a ñoo yor suñu kaaraange mais bi ñu ñëwee ñoom dañoo wàcce seen bopp yëkkati ma mu mujj rus mhm. ñoo askan bee far bu bari wax ma yoo xam ne da nga xam ne ñii ay jàmbaar lañu ba gën ma couragé gën ma motivé bari nga seen xaalis bari jox ma ñoom gendarmerie tey mbaaw kon tey di leen sant bu baax a baax non damay damay mention spéciale ci loolu ci ak ndaw chef ndaw mi nga xam ne moo moo dox loolu moo ko coordonné woo ma téléphone mm-hmm. xam nga sonal ma te boore woo man maa leen waroon woo mais sax instant dem ci guddi mbaa fàttewoo suñu affaire bi tey ñu xeer fa teel envoyé vocal la xam ne yeewoo ko mu ne ma mbaa fàttewoo waat ma ndeysaan amet bëgg na la de barke Seydina Mohamed gendarme yi maa leen sant di leen jox seen ak fépp gendarmerie mën a nekk jàpp naa la ngir tey chef ndaw ak waa mbaaw képp maa leen sant di sant képp ku nekk takk der nekk Sénégal di sant ñëpp Lac de Guiers tamit maa ngi ciy waxaat bu baax a baax comprendre li ma la mën a wax Ameth gis nga Ameth na ko làmb jàppale. Lac de waaw na ko làmb surtout waa Géejawaay bu waxantee dëgg ah, amuñu produire bu mel ni pour de Guiers 2. waa tàntaluma ko li may wax waxuma ko pour mu arranger keneen waxuma ko pour mu arranger Lac de Guiers 2 man ça ne intéresse pas li ma war a wax laa wax mooy boo déggee man amagun produit bu mel Lac xam nga ne mbaa xam nga ne defet day réglé mbër mhm. ak deuxièmement sooy bëri amoo ay supporter da dem benn essence sox da ko dal ci combat ak soo amee combat yoo xam ne yi sa waa ko sa waa gox génn luñ la rek yow da def sa xel ne man du daanu ak lu mën a xew damay bàyyeeku hmm. mais Lac de Guiers ni ñuy motiver yenn mbëri nekk géej hmm. ko ci lu leer ndax loolu boobaa du yebe ay supporter noonu kon tey hmm. waa géej war nañu xam ne am nañ produit motiver jàppale Lac de Guiers 2 booloo génn jàppale ko teyal tax pour mu am ndam pour pour pour génn supporter ko pourquoi ça drapeau géej waaye Mm-hmm. koo xamante champion nga sa ginnaaw laa la ko suuf ah? yow bëri fi jàppale géejawaay tey moom moo ci tey géejawaay mënoo fi gën a koo ko fa gën a rafet palmarès ba sama doomu day guy laa da gee ko gën a rafet palmarès sama xarita sama doomu a junni yoon te ñoom ñëpp mën a ëpp doole nañ ci bàyyi xel mu ëpp guy gi doole ëpp laa da gee doole ëpp Alioune Seye 2 doole ñoom ñëpp mën a ëpp doole kon pourquoi ça tey waa géejawaay waruñu ko mën jàppale waruñu ko mën a comprendre man nag waxuma ko pour ay waxu dara waxuma ko pour waxu rien de man damay wax en tant que koo xamante xam nga porte de voix boo xamante ni laa mhm. man ku gëm sama bopp laa mhm. porte de voix boo xamante man du dunguru porte de voix boo xamante mooy man ça n'intéresse li ma sentir laay wax li ñor ngay wax waaw man lii dëgg man nekkuma di wax pour pour lu déranger campé sunu grand Aziz Ndiaye sax maa ngi gis fan yëpp mu may woo. mais Aziz Ndiaye waaw maa ngi koy nuyu au passage xam na xaw ma nag lu xew mais damay expliquer man xam fa laa gëm du question. mais jël nga ko jëloo ko. non damaa jàpp jëlu ko dama am si lu ma nekk. Ah, mais lu tax. kilifa waaw kilifa rek nga mën a doon comprendre gis nga yàlla suñu borom mën na fekk 5 tonnes mu nekk xale bu ndaw boo xam ne sax amul dara amul mu def ko def ko kilifa ñëpp bëgg ko loolu day koy chaque jour man ma wax la ko nag man Diomaye Faye su ma woon tey may añ barke alxuraanu kariim ma ne ko coupé la may añ man noonu laa gëm xam naa ne man xam ma man man ma du ma man comme ma comme affaire yi ma ma man du ma def genre boobu ak ni nga bëggee xaalis wallaay la nga kon bu président bi woote woon nii nga fekk mu fekk nga añ doo bàyyi añ moom Mbaye Diagne joueur ki ma booleeg moom nu ma seetaan fa bala yàlla di ma ne sama man bañ naa ko équipe Sénégal bi mi final daa fekk may nelaw man moom yaa ngi mu woo ma ne ma non bay Diagne ñii joueur du ma ne ko man damaa xam kuy Mbaye Diagne bi ma wooyee mu ne ma alwaa saa ne ko sëriñ bi damay añ danga may bàyyi ba ma añ bu pare mu ne ma ne ko ay sëriñ bi damay añ coupé ko hmm. muy siwaat mu woo ma léegi ci guddi bi ñu dégg mu ne man xam nga mu ne ma cinq doon man non man isa dama xam ne yow nit ma ne nekk lu correct lu seres man du comme doomu war a a peut-être loolu man sax def loolu yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yow yàlla suñu borom bind la hmm. may la patoo laggi wa defoo dara dëgg la nag doomu aadama bu ne war nga koo jox wàccu waayam doomu aadama bu ne waaye fexeel ba bul wàccee sa bopp ngir doomu aadama man du ma ko def wallaahi la azim laala ak ku ma mën a tasal ci àdduna amali milliard barke alquranul karim su jox cër nag comme cëru grand frère wala cëru papa mais fi ma toog fa mooy sa loolu mooy sa dund quoi. waaw mooy sama lug man. ok ok. <laughs> rek maa jiite. kan si yi bala maa dee ñu ñu bëgg a rek alxekumu alxekumu duñu sonal sa sa sa sa sa sa koñ ko ba léegi ay jiite. non maa ji paa yi kat bala maa ñoom paa su de barki alxuraanul karim ak napp alxekumu alxadiyaat. mu ni man Sarr. <laughs> walxaadiyaat ak wala xekkum walxaadiyaat xam ne moom la ñuy jàng xale yi loolu rek lay tari moom lu ma ne ma salaam bisimilah alxaadiyaat dabohaan fal muuriyaati xadxaan fal muqiraat subhaan fa asar na bi naqahaan fa wasar na bi jamhaan ci kaw la koy tar dafa fajar xam moom fajar rek la moom li muy tari noonu la di noonu la waaye non mais day nay changé day varié alxuraan da ngay def varié waaye chaque jour yow naafi la safa fi tar rek walxaadiyaat ah waaw bu ah. ñu saray walxaadiyaat la la jël daal def ko palaamu daa ba ñëw ah euh, euh, <laughs> fajar ki nga jël sur fajar sax moo tax waaye génn sëg ñu rek walxaadiyaat yaati wala xaati yaati ah waaye chaque jour benn place nationale loolu tamit neexut quoi ah boo jàngut sax doo daal lu ñu doon am na solo ah. kan nga koy ñaax moom la dëggee numéro 2. waaw li ma koy ñaax nga koy doolee ñaax ndax fi mu ne yaakaar naa ne nag ñu bari ñu ngi combat ñu bari ñu ngi coow diggante mag Franc bu ci génnee bu génnee prison nañ ko jox Franc ndax mu bare mën a changé waat wala mën a mën a nekkaat ci alir bi mu nekkoon. waaw Lac de Guiers 2 mën na am combat champion la war na mën am combat nekkaat ci alir bi te xam nga mbaa xam ne Lac de Guiers 2 mën a jóge fii làmbam bi tàkk quoi. tàkk. non waxuma la non te dama ne mën na fi jógee. mën na fi jógee. làmbam yëpp tàkk. làmbam tàkk ok ndax xam nga tax. Mhm. yàlla bu la tegee nattu rek. après boo ko gëmee nga ñëw amaat gëm-gëm boo ci gëmee rek mu war ne lam la tegoon da koo gëm doyloo ko nga xam ne yàlla rek ay buur comme hmm. tey mu ñëw jàpp ba seet guddi 3 heures mu ne ko yàlla sant naa la ci natt bi ma teg hmm. ndax da koo jàngal àdduna waaw da koo jàngal àdduna dëgg ndax laa am na yu mu daal yu bari yoo xamante ni tey mën na laa jot ak ni sax exemple mën na xam comprendre waaye tey bi mu demee day xamaat toog casé wu danañ ko moom ñam fa nekkal ñu nekk ay chef de garde danañ ko expliquer moom dana xam tey àdduna nii lay doxee moo tax hmm. dañ koo jàngal àdduna yàlla noonu lay doxee ay mbiram am na natt yoo xam su ñëwee da ko war a sant yàlla muy feebar muy lenn. da nga mhm. war a xam ne sant yàlla suñu borom. surtout. waaw amet mhm. yàlla leen rek la wax la la wax ne moom man def mënul def mooy julli daane mhm. man def mënul def mooy julli. ok ok kon bu la tegee natt danga war a gëm ne di natt boo xam ne suñu borom moo la ko teg. mooy la kon li ma koy encouragé mooy mu takkaat dàll yi te ko fi mu ko tegoon xam nga bañ a bàyyi benn côté. entraîné gëmaat boppam xam ne ku am cër ci làmb la ku xam ne ku ku ku Sénégal yi bëgg la mhm. ndax li mu def tam yombul ndax te amuñu ku leen dimbali amuñ ku leen waxal amuñ ku taxaw seen dossier kon na sant yàlla bu wér a wér mhm. comprendre na mhm. waaw di ko ñaanal jàmm mook franc làmb dàqu ko te yàlla na day dóor franc dafa war dóor franc mu daanu Franc nag ñoom ñooñu kenn mënu ko ci bañ ku ci mel ni Balla Gaye 2 ku ci mel ni Lac de Guiers Franc boo bëggee de bokk na ci làmb man nag du ko faral ci làmb mënuma ci moom dara mm-hmm, mm-hmm. mais ñoom mënuñ ko bañ ci làmb quoi loolu faaw ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ok loolu am na solo moom la déggee numéro 2 ñu ngi koy euh, béggewaat bu baax a baax di ko ñaanal ñi nga xam ni mu ngi koy sént ci carrière am yàlla defal ko ko bu baax a baax a baax te yaakaar naa ni digganteem ak Franc làmb la digganteem ak Tapha tin lamb la mook tafaatin lamb ju neex la mook tafaatin lamb ju neex waaw yaa ngi waaw loolu lamb la mook tafaatin lamb la quoi mook tafaatin lamb la ju neex mhm. tafaatin tamit ñu ngi koy mosow di ko nu au passage nekk na càmbar ndeysaan combat nga Balla Gaye dóor mu daan la indi woon mhm. <laughs> moo tax arbitre bi ne prime ndeysaan dafa dóor ñaari baaraam yi dama mais yow est-ce que Aziz li tax mu lay woo nekkul li nga koy sonal temps yi ci réseau yi parce que da nga ko da nga ko sonal ah non sonal ma kenn tafaatin ba xam ne ñaari baaraam yi dafa damm ci biir combat xam ci loolu ñaar ñaari ñaari baaraam yi waaw bi muy dóor Balla Gaye de dafa tal ci waaw ah, parce que gis nañ vidéo yi ah mu koy mu koy signaler quoi dafa dafa dafa damm ñaari baaraam yi dafa damm ci biir combat bi quoi. mais nan la mën a damm te est ce que dóor na fa la dóor quoi ñaari baaraam mi damm quoi. téléphone jeunesse bi. waaw téléphone jeunesse bi allo waaw. waaw jeunesse bi waaw. minutes ma ne ay ay c'est rappelé trois minutes rek allahu rabi. ma ne c'est rappelé minutes wala trois minutes incha allahu rabi. waaw yow mooy loolu dinaa la wéef léegi cinquante mille loolu pare sama xarit nga yow yow amal jàmm yaa ngi dégg. <laughs> cinquante mille ngay wéy fi léegi. ah non adduna yàlla temps yi dama naan naw daal temps yi bëgg naal de. temps yi moom bëgg naal torop. non adduna yàlla ko moom temps ku nekk kay woo. adduna yàlla ko moom. kilifa. kilifa. di sant bu baax baax baax di jox sa wàcc waay jeex daal xam nga ñu ngi sant bu baax a baax a baax Père lay ziar la jox sa wàcc waay ëxlu lamb noo gisee taxawaay bi ñu am ci moom moom la de waaw dem nañ fa surtout Modou Modou Lo def na ne def na esprit grandeur loo xam ne tey ñu bari dëkk Géejawaay ñoo ko waroon jëkk a def comme ku mm-hmm. mel ay guy ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. kon tey Modou ñu ngi koy jox wàcc waay bu baax a baax ndax tey man su may wax rek xam nga la gisee may jël exemple ji guy ñu dañoo gaaw a kii mm-hmm. mais Modou lu mu def noonu am na ñu dëkk Géejawaay ñu ko waroon gën a jëkk a def comprendre mais mulo Lo vraiment war na ne jullit la war na ne xam nga li muy li muy fonk na moromu jullitam ndax li mu def noonu defalu ko Lac de Guiers làmb gépp la ko defal comprendre na mhm. tey it waa làmb ñu gën a bàyyi xel xam ne ñu bokk goj ñooy laxasoo ñu bokku teen ñooy laxasoo ay goj kon nañ ko rafetal te jàppalante bu sa moroom nekk si nattu nga yéene ko jàmm bu ci wax leen lu négatif de mhm. ko jàppale xam ne yàlla suñu borom mooy defe nattu nu ne ko jaar la ci doomu aadama comprendre mhm. waaw ñu ngi leen di jaajëfal waa làmb yëpp di wax waa CNG tamit ñu gën a defaraat seen toogin waa CNG nañ gën a defaraat seen toogin bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a na yu bari xam kenn waru leen see jiitu waaw faaw ñu si bàyyi xel bu baax xam nga di jaajëfal làmb ak journaliste yeeg ñëpp ñi ci doon wax yu wax yu rafet xam nga ñëpp ñu ngi leen jaajëfal daal. ok am na solo maa ngi lay bëggee waat di kontaan ci jotaay bu baax. lay bëgg waaw. lan ngay tàggatoo. waaw santaat rek sant rek comme noonu rek sant ñëpp rek. <laughs> jaajëf jaajëf.